parce que ñu ñëpp Sénégal moom ñor muy parti au pouvoir di parti opposition ñun ñëpp ñu jëmale Sénégal kanam moo ñu ñor kon war nañoo bokk ay idées yoo xam ne mooy tax ñu mën a développé yow carrément parce que ñi développé wu noonu nag dañ développé woo dañoo àndandoo euh, nekk benn kon yaakaar naa ni euh, xëccantoo beeg xajante beeg yooyu yëpp mën na ñàkk. man affaire PDG yooyu moom dama ci amul confiance ndax bu fekkee ne euh, dëgg-dëgg dañuy waxante dëgg Idrissa Seck li mu li mu indil PDS benn parti indilu ko PDS fii te teewul bi ñu jaxasee ab la Abla Abdou Diouf ak euh, bi ñu jaxasee euh, Ablaye Wade ak Idrissa Seck dañu daal di séparé wu. man daal Diomaye li ma ko wax mooy transhumance yi na leen teg ca suuf ànduñoo kenn ànd nag ab Ablaye wàdd ba Ablaye Wade daanoo dañoo daal di ñëw ci Macky Sall fii mu bi Ablaye Macky Sall eh, eh, bàyyee fii mu ne ci joomaay lañ jëm si. boo jiitalee ragal yàlla rek mën nga liggéeyal mën nga liggéeyaloo képp ku mën doon ndax ñooñ PRS tamit ñun dàquñu leen ndax Ablaye Wade moo tax ndax Ablaye Wade maam la bàyyi la est-ce expérience bu bare bare bare bu moom ci politique doom Karim Wade tamit aussi tamit noonu mais nag lii lépp na na ko dëgg rek lal ñoo man ñun liñ ñor mooy li nga xamante ne nii moom moo nu jafe mu defal ñu ko non non ñun bëgguñu ànd ak kenn ñaami ñooñu jaaxle moo leen tax nu ñëw waaw bi nu jaaxlee moom tax nu ñëw waaye bu nu amoon lu leen gënal ñoom du ñu ànd ak Sonko ndax Sonko ak Jomaay euh, yaakaar naa trois ans yi képp ku ànd ak ñoom dégg nga lu métti bañ nañ ko ba ñun ñi nga xamee ne sax Pastef lañ dañu doon bàkk ay dof. état continuité la PDS daa ñëw pour bokk ci coalition bi mais tekkul comme le Seydina Ousmane waxoon rek moo ci ne de affaire bi amul lu ñuy séddoo amul lu ñu paacoo ku nekk da ngay ñëw boo ñëwee bu fekkee am nga compétence ba pare en plus sa loxo na amul benn problème day liggéey ak yow réew ñuy bañ ku sa loxo taq demal toog ku sa loxo set nga ñëw ñu ànd liggéey réew mi loolu rek la réew mi kenn moomu ko. ànd liggéey mënul weesu yow ñi nga bokkal gis-gis waa PDS bu fekkee ne ñoom ku ñëw pour tuub li Ousmane Sonko di wax tuub xam nga nit nit bu nekkee tyran la li may wax nag c'est important danga may dégloo kii nit bu nekkee tyran la mu mën a wàcc yàlla ne dootul tyrande kenn comprendre nga mën a assurer ne dootul sàcc dootul ger comprendre nga kooku yoon la nga liggéey ak moom ak kum mën a doon muy PS muy PDS muy APR muy ñëpp comprendre ga ci côté boobu noonu ci laay dugalaale lu ndaw mooy euh, nañu fexe ba nga xam ne nii euh, comme ni ko gars doon waxee ci projet bi ah ñu defee ko noonu maanaam justice bi am doole képp koo xam ne nii jalgati na ñu mën laa teg ci yoon comprendre nga su ko defee xaalisu réew mi nga xam ne ni ñoom dañ ko doon bazarder ak seen doom yi parce que ñun ci milieu bi lañ nekk quoi comprendre nga ñoom ñu génne ko Sénégal mun a avancer.